asalaamaaleykum yéen waa Kaolack yéen waa région de ñun ay député lañ soo mënula dem dangay def procuration. leeral yi ma ci indi mooy man mën naa wax ci yaay yaaya mën naa wax ci man ndax sama xarit la koo xam ne damay nekk di weddiwante ak yaaya yaaya maa ko jox procuration ne ko woteel ma waaye la ma bind dama leen koo yónnee yéen ngeen liir ko. dama ne ko woteel ma lépp lu benn Bokk Yaakaar di wote fa laay wote woy laay wote foofu mais il faut nga am procuration koo ko jox procuration ba ma ko jox nag moom bu ko wotee ak bu ko wotewul ak lam caay wax yëpp moom xëy na engagé na ko ndax may engagé na ko ndax sama xarit la lu daanu ci kawam daanu ci suma kaw lu ko neexit mën naa ko wax ci man waaye mbind dafay leeral man la ma bind dafa leer te man wote naa diggante yaaya nag ak la mu wax ku dul mer amul ku dul xuloo amul dëgg la jàpp naa ne juum na moom mais mag bu juumee doo jàkkaarloog moom ne ko juum nga. nee na man maa ko sant ne fu mu wote naan ma na ma fa woteel wax na dëgg parce que maa ko jox ne ko woteel ma man maa ko jox ne ko woteel ma. waaye la ma bind dafa leer bu leen neexee yéen ñëpp ngeen jàng ko li ma bind leer na la muy def nag man lu ma ci man parce que man maa ngi tëdd ci lal damaa feebar la muy wax manuma ci dara bu bonoon sax dama koy defar. parce que ñun ñoo bokk parti bi ñoo bokk kër gi te lépp lu mën a wax Macky Sall am na ñu ko wax lu gën a ñaaw loolu te Macky sàll mu ngi koy muñ parce que Macky Sall nit ak démocratie te ku dul juum amul bañ àndee ba léegi ñaata at ñoo sos parti bi ba dem ba barki démb lañ soog a wax ne yaaya tooñ na wala tooñu juum na wala juumul mais ku dul juum amul mais bu juumee nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk parti bi ñun ñooy toog te juti nekk defar ko Macky baal ko ba lu noonu dootul am man loolu moo ci sama tànk man damay ñëpp dañuy juum parce que tey buñ ne président de la république du nitu caaxaan yàlla moo ko fal même bu dul président de maag yaaya rek sama digganteeg moom sax man naa juum sama digganteeg yaaya yaaya naa juum sama digganteeg moom parce que ku dul juum amul yaaya nit la comme ñëpp man damay juum Macky sàll sax daay juum. koo xam ne juróomi at lañ la fal yow at bi sax jeexagul yow sa yëfi bopp la yaa ko moom nit ñi nag dañu tëdd fale naan ndox naan ma xalaat su ma waxee lii Macky fal ma su ma waxee lii Macky fal ma su ma waxee lii Macky fal nga gis leen ca rajo ba ñuy wax te fekk mag yónniwu leen santu leen ko ñii di ko dëggalal ñii di ko weddilal comme suma classe gi dégg nga ñëw rek yaakaar ne wax fi wax ju neex mooy tax ma ki jox ma dara wala mu fal ma loolu ku ko ciy defit lu la ci fekk nga jël dañ koo tooñ waxi Macky lañ wax waxam la du waxi keneen Macky lañ fal troisième tour ak vingt vingt tour ak vingt nangam yëpp Macky la ñoom du ñoom te ñoom ñoo Macky nekk di liggéey moom laka la ñu yàkkamtee nit wolof daf ne boo fanaanee ku biiram di daw mu ne la kaay wettili ma ba guddi biir bi yee ko mu ne la kaay gunge ma yow loo moom bu dawut yow loo dawee yow mi koy gunge ñoom bokkuñ ci troisième tour faluñ leen falaanuñ leen seen yoon nekku ca Macky yónniwu leen fa ñu dem wax fa seen waxi bopp man Macky laa félicité buur dafay am fayda ku dugg ci sa wax wax loo ko wax loo dàq ko ndax ba mu leen di jël ñooñu ñooñu di wax tàggu leen woon te it gis nga ñooñu di wax seen baat ak ku munti doon fii ci Sénégal Macky sàll la ëpp baat ak koo mënti doon Macky mën naa xëy dàq la te kenn mënu cee dàq Macky sàll yàlla mi ko faloon rek tàkk mandaam bi jeexul kenn mënu ko